yéen yéen sama jabar yéen a ko dàq. ñun ñii dañoo ragal lool. kon booloo ngeen doon say dàq sa bopp. eh defal ndànk nag jikkoy Cees waa lañ ko def dañoo booloo boole suñuy doole àndandoo dàq ko ci bitti bañ pare nag ku ne indiwaat sa jikko. <laughs> ah non non waroon naa am xam nga lu may def damay dugg ci néeg bu nekk ni la merci loolu moom foog ma def ko. Mm. mais nag am na coow laa ngi doog a tàmbalee. ça va pas kon may rëbb yi man leen laa lay conseil xoolal su awee gauche awal droite do xam nga ko dafa bari pexe te daa sadi hmm, est ce que du ma jël congé kon toog ci kër gi waa léegi bu la fekkee ci kër gi nag ngeen deful doo ak say dàq ko loolu laa gis de <laughs> waay sa papa bu ma fa demee ca doxaan ba mu tegal ma laser ak pistolet laa sa pare ma <laughs> tapet nga nag yow yow su nii nga nekk nii yow am kër day tax doo réfléchir yow lan ngay mën a jàkkaarloo ak dina ji nga bokk ak ni ngeen yaarale ngay taxu naan ma ay nit ñi dañu war a màngu foofu diggante boobu ban amul moo fi am ban lu sérieux moo fa nekk yow est-ce que nit eh dof naa ah. xool. kanam nga bon gi ah yow loolu tudd nga ni. man Evelyne laa tudd. yow moo la tax a dof ba nga juddoo tuuti teel a Evelyne nga dof Evelyne yëpp yi ma rogu fi bëri dem bëgg dof la. yow pire dof nga. mais mon père yow tàng nga de. non doon parce que man ancien soldat la man damaa rëy nit ba toog di wër gay pour ñëw pour nga jàpp ci nga may wax sa wax dof yi. mais même booy nga lan la. non si. yow li nga wax man yëg naa ko sama sœur nangu na ci ànd ak moom ana problème bi. gis nga sa combat boobu ak sa xeex boobu man je ne suis pas partante yaa ngi dégg te xam nga lan laa bëgg nga jóg nga génn sama kër. Eh. waaw jógal nga génn sama kër. koy génn kër gi man yow yow xamul fooy taxawaa. Ah? parce que ku la xool sa kër gi gis nga wéetee la yow am ndof ci moom génn ci lii xaw ma am nga jëkkër xaw ma moo ko may dóor nit. mon père tu me déranges là tu veux te guérir. mais